sëriñ bi président Macky Sall lépp loo xam ni jëf na ko ci sa dëkkam maam bii nee na lu mu rëy rëy rëy nee na tuuti la ci li mu yéenee jëf ci dëkk bi euh, nee na muy wax ni li jëm ci màggal gi yëpp nee na dem na moom saytu ko. moom la président Macky Sall dénk mooy président ne ko le ministre de la santé màggal gii di bésëb maam Serigne Touba mu ne nañ ko sant la yàlla amul tànki gannaaw de tànki kanam rek la am kon day yokk jamono june Serigne bi doom nee président ne na ko mbooleem lu ñu defan daaw benn def nañu ko ren téeméer ful ko nee hôpital bi nag benn hôpital la ci Afrique waaye fii ci Touba loo def rek nekk na loo xamante ni dayo bi dëkk bi dayo ak maqaama bi dëkk bi am moo tax lu mu fi def rek lu war la lu jaadu la ndax dëkk bee laaj nee na mu yëkkati ay loxoom di la tàllal bi sa doom ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi lay tàllal ay loxoom di sàkku ñaan nga ñaanalal ko kilifaam gii di président Macky Sall dénk ko pajam réew mii ndax nee ñaan googu nga koy ñaanal yàlla dëgëral ko ba yéeneen ci réew mi mu àggale ko ci kàttanu yàlla te lépp ngeen ànd ko mbàkki balay jiburi nee na ñoom ñii ko jigee nee na ñoom ñi jige président sa doom xam nañ ne saa bu xëyee ba ba muy tëdd ci soxla yu réew mi rek la nekk mbàkki balay sa te nee na xam na ne ah ku man amul mbàkki kuñ jàppale rek am boo ko jàppalee. teew Mbacke Balaye si buri nee boo ko jàppalee. te bu doon na bu fekkee ni fukki jàpp la am. nee na juróom-ñeent yëpp Mbacke Balaye si yaa ko jàppalee président Macky Sall sa doom. delloowaat sama bopp. boppam. ci ak taalu bi ak doon doom ci yow. nee di tàllal ay loxoom. nga ñaanal ko yàlla nee na rek mbàkke nga ñaanal ko rek li nga ko yéene na wóor na ko soo ko ñaanalee bu boobaa nee dana mën a ànd ak président Macky Sall ngir jëriñ am réewam ba lii kii nga xam ni mooy kilifaam dénk ko nee du ko jëppi benn yoon mais mi ngi leen di gërëm di leen sant Mbàkke jërëjëf. mu ne kàddu yi nga xam ne jot nañ ko fay yëkkati lépp dégg na ko. mu ne dégg na kàddu yi nga xam ne yow yaa ko yëkkati. mu ne mi ngi ciy gën a am amati mbégte mu rëy rëy. mu ne mi ngi gën a dolleeku yaakaar bu baax. di gën a bég mu ne di gën a bég itam ci taxawaay bi. mu ne di ci sant di ci gërëm. mu ne xolam sedd na bu baax a baax. mu ne ci yitte juree ji nga xam ne. président yéene ci dëkk bi. mu ne ci yitte juree ji nga xam ne président yéene na ko ci dëkk bi. jëmee ko ci dëkk bi. jëmee ko ci mu ne tayit mu jaarale ko ci sa jëmm ji. mu xam ci taxawaayam mu ne mu xam ci nag sa taxawaay ju rëy rëy. ba ci ba ci sa jataay bii tey. mu ne kon mi ngi gën a yeesal ak cantam. mu ne di gën a yeesal a ngërëmam. di gën a dolli nag ñaan. mu ne di gën a dolli nag ñaan. waaye rek ni ko ni président yéene eh, mu ne ni nga ko waxee rek ni ko président yéene eh, liggéey bu rëy bi nga xam ne yéene na ko ci réew mi. mu ne mi ngi koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi kattanal ko ba mu àggale ko ci jàmm ak salaam. mu ne yéen ñi nga xam ne da ngeen ànd ak moom ci taxawaay bi tam. mu ne mi ngi leen sant di leen gën a gërëm ci ànd bu rafet bi nga xam ne ànd ngeen ko ak président. mu ne di leen gënal ñaanal itam. mu ci gi nga xam am ngeen ko ci seen diggante. yàlla gën koy dolli bu baax a baax gën la wommate bu baax a baax ba lépp gën a yomb gën a yëwén gën a barkeel mu ne lépp it sottiku di ndam seen ndamal bopp ci réew mi mu ne mi ngi leen koy ñaanal bu baax a baax jërë ngeen jëf mu ne xolam sedd na bu baax a baax من فتبارك الله صلاة الذي في كل سهر وفي سفر fi safar هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة